te moo gën a xam Fatou Touré lan la moo wax ak fan la moo waxee donc Ismaila Ceesay dofut waaye dafa because of duul kat la dafa practice duul ba am si certificate mu ñëw taxaw ñëw toog bugga pour fenloo Fatou Touré waaye Fatou Touré lu moo wax xam na ko Gambians yu am xeli xam nañ ko Ismaila Ceesay amut lu moo def ba manipuler nit ñi pour ñu contour Fatou Touré déedéet Fatou Touré lu moo wax ñëpp a ko xam wax la la wax si biir wax moo ko faa jàng every day and it's true hey benn bakken bu dee benn at rek laa la wax de ah baax na coach benn bakken bu dee benn at sax bakken la Ismaila Cissé reyuñ sa doom sàccakat yi yéen leen di bàyyi di sàcca baadoo lay yéen mënu leen di toppa ñii si nguur gi soo leen di dog boppam mënu loo leen di dog boppi baati baati baati ñii nekk si nguur gi ak seen ay njaboot ngeen bàyyi nit ñi ngeen bàyyi société bi ñii seen ay seen ay ñi leen di gaat tireenu ñeena leen gën a tireen dem leen enu weñ kon kat dañ leen di jàngal pour ngeen nekk ay criminel ngeen nekk ay bandi salte dooree leen ko si ñoom boo leen di rey rey leen fii dañoo toog di ko célébrer barke alquraanul karim fi lañu tok diko celebrate Gambia is peaceful Gambia is peaceful ah fekk rayu sa bay fekk sa dom yi nga jur rayu len because ya, ngi am ot lu yu la toppa léegi dañ la jox dat importance nga fokk da nga important yo important lo du rek ngay def yo sa history am nañu ko xam dëkk bi nga nekkon dëkk bi nga nekkon xaw ma Suède la xaw ma sa history nit ñi xam nañ ko xam nañ ne danga nekkoon ku ñu gën a sonna nga ñëw kër yow lan nga am ban mbooloo nga am social media rek la nit ñi di follow de ndi kon nit ñi sànni la karta ndi kon nit ñi support la waaye xam nga ne xëjuloo fen xam nga ne kenn sa supportul la because yow benn nekkuloo nit ku baax ñaar duulkat nga te yàlla bëggul duulkat te gis nga tricot ñi topp Adama Barrow ñi yëpp dañoo julli duñ julli waxtu yu juróom billaahi wallaahi tallaahi